yenn saay nag seytaan yi dafay jéem a nax ñi bokk ci yàlla ñu gëm ci Jésus te di leen jéem a xëcc pour nu déggadil yàlla di leen gëmloo alalu àddina maanaam xaalis yére yuy rafet oto bu rafet di naan sangara di doxaani loolu yépp seytaani dafay jéem a nax nit ki ndax mu xamal ko ne gëm yàlla daal amul solo bugg yàlla ci sa xol daal amul solo wante loolu yépp soo gëmee ci suñu borom loolu danga ci génn te loolu yépp du luy may nit jàmm nit kay lu koy may jàmm mooy topp baatu borom bi te ci kaw loolu yàlla dinañu yónni xel mu sell te xel mu sell mi dinañu ñëw aarnu ci kattanu Jéesu bi am doole te daq bépp rab bu bon